2023 chiffre yi de manière officielle c'est des faux mm-hmm. tous les ministres des finances mm-hmm. ne nag c'est la responsabilité de Macky Sall mm-hmm. waaw ngeen top. xam nga Pastef parti tapet la partie parti tapet la manam lo fo wax lu ne. Mhm. te wo ci Ousmane Sonko jour bob ngay gëjë wax. waaw ah, deug la deug woo ma de. Mhm. deug na la bu baax. xam nga Ousmane Sonko. a mhm. toujours mom day dénkaane combat da ngeen sonal Amadou Ba rek. mais mo dàq de xolal xolal mo dàq différé combat ci Sénégal. combat yi mu ñëwul jël yépp yépp yépp yépp da koy dénkaane. deng mu créer ay nit yo xamni su ñëwewul wax ay affaire ñom ñok koy waxal yaa ngi dégg mhm. ñu top naan ko ay wëy bés bo fi tege sa tank hein ah, dañ lay jàpp mhm. dañ lay menacé mhm. dañ lay li hein ah. wa léegi su fekke dara tu gor mu ngi dox sa yaram bii nga nek un homme d'état yaa ngi dégg. Mm-hmm. nga xam Macky Sall pare woon na ba commencé am ay fonctions internationales. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko moom xam nga lan lay bañ. mooy maanaam moom képp koo xam ne dala doon seetaan télé. Mm-hmm. mu nekkoon sago. balaa muy dem mu teg la tànk. nga nga nga nga sukk. courber l'échine mu teg la tànk. dëgg la. gis nga gis nga su gisee su gisee ay ñoom Boubacar Camara yi nga xam ne bu Boubacar Camara di nekk mm. moom nekkul ñu koy rog a jeeru mm. il est content mm. ah, waaw lay envoyé kañ ay ay kan ay ay Mamour Cissé yeewu suba teel di naan mu di soutien Pastef nga gis ay Mamadou Lamine Diallo nga xam ne yow nekk nga lu ne dans ce pays là nga dem naan

mu ne kii balaa ñu fay yëg dinaa ko toroxal mais loolu bi mu amee moo tax ma ne la le a déchiré le protocole du Cap Manuel xam nga mooy lan waaw dama leen naroon bàyyi seen jàmm organiser leen jël leen seen réew bañ na ko ba sax moom moo tas parten mhm. bañ leen dooleel ak lépp mais mu toog ba si yàgg xam ni mhm. moom bu jugul si kaw booy yi booy yi ci kawam lañ jëm. loolu dëgg la. mu déchiré protocole bi nag taxawu nara a jàkkaarloog ñoom te gis nga bu déchiré protocole bi. Mm-hmm. Hmm? day am ay ramifications yu extraordinaire mm-hmm. moo tax euh, thème émission bi tey mooy pourquoi mm-hmm. à un moment donné nga xam ne nit ki daan la may deux ans trois ans. wala am ay ancien président yo xamné ne duñu wax di sax ci réew mi pourquoi seulement après 7 mois ko xamné dafa non doyal na ma ngi xaar rek pour def passation pour dem doyal na ci réew mi delu ci wat 7 mois après loolu moy laaj bi il faut ñu tontu ci ci mm. émission bi. légui euh xam nga da nga évoquer ay cas yu am solo. Mm. té xam nga lu tax cas yoyu moy transhumance bi ak le nouveau. On va euh, ñooñu c'est des gens ce sont des gens extrêmement dangereux euh, il faut les débusquer diri